asalaamaaleykum ñu ngi nuyu ñëpp rawatina nag waa Médina Fass Colobane Gueule Tapée Sandaga Gibraltar waaw di wax rek message boobu ñuy dégg ñu naan Gris Bordeaux mu ngi ànd ak ay nervi di contre manifestant yi loolu c'est pas vrai waaw loolu du lu am te ñun ñi xam <laughs> Gris Bordeaux dëgg man mii di rakkam rek njomble naa sama bopp loolu waxuma laa nag euh, ak moom ak statut ñu mu toll ba muy nekk jeune nekk xale sax nga xamante ne ñu bëri jaar nañ ci sax jaarul ci loolu waxuma nag mu dem ba toll fi mu toll kon yooyu ngeen xamee ne nekkul ci loolu depuis hier avant-hier ba léegi mu ngi ci problème mu bébé Saloum boobu mooy lutteur boobu ñu am problème tribunal bu Pikine waaw kon nag ñu déggee ko noonu rek xam ne gars yi jéem a yàq der ak di suur ñu xam ne fii moom nit ku nekk fii Sénégal ñun ñëpp xamante nañ xamee nañ dungurukat yi xamee nañu ñi nga xamante ne dañuy dañuy def ay sale mais pas Gris waaw kooku moom buy dee day dee ci ngor